ñu ngi am mbégte dalal euh, Modibo Diop vice-président mouvement des entreprises du Sénégal MEDES ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci matinalu Rewmi FM soxna Fatou maa ngi lay nuyu di ci producteur nuyu seen auditeurs yëpp di am mbégte tamit di waxtaan ak yow ci suñu assemblée générale bi ñuy daan a def tey ci samedi ji alors boobu assemblée générale justement war a am ci kanam tuuti ci euh, benn hôtel fii ci Ndakaaru euh, ngeen di ci euh, daje yooyu la assemblée générale boobu ak léegi am na ñaax fukki at ak ñett lan mooy solos ndaje moomu pour MEDES waaw xam nga euh, mouvement mooy ñu ànd comme ñun euh, ñu ànd ci wàllu économie la. Mhm. ñi nga xam dañu yore seen ay entreprise di def seen i pexe bopp mhm. pour pour mën a am am am wërsëgu ñu yore seen njaboot ak yore seen bopp ak muy réew mi. Mhm. mouvement mel noonu nga xam dafa dajale ay sociétés yu mag a mag ay sociétés yu yemambaay ay sociétés yu ndaw ci wàllu wépp ñii ñu ngi ci agriculture ñii ñu ngi ci pétrole ñii ñu ngi ci gaz ñii ñu ngi ci électricité ñu ngi ci bâtiment. Euh, bu ñu dajaloo nekk ay ay téeméeri téeméeri téeméeri téeméeri société day baax at mu ne ñu toogaat seet seen bopp pour pour tëggaat li nga xam ne mooy doxal mbir mi loolu mooy waral assemblée générale dinañu utaat ay personnes yu bees jox leen ay responsabilités ñi yore économie ñi yore relation ak institution yi ainsi de suite bu ko defee yeesalaat euh, ko banqaas yi nga xam ne moo ne suñu biir mooy tax assemblée bi am ba pare nag seet suñu biir tamit Euh, la nga xam ne defoon nañ ko ci at mi weesu ba fi ñu toll nii mm. lan fan lañ ci toll lan nañ ci war a war a war a war a defaraat wala lan lañ ci war xoolaat wala li nga xam ne war nañ koo sant ndaxte def nañ ci lu baax. Mm-hmm. lu jëriñ ñëpp. loolu mooy waral assemblée générale bu mel nii. Mhm. justement bu weesoo yeesal yenn bànqaas yi euh, da ngeen di waxtaanee li ngeen jot a def euh, balay peut-être secrétaire général ci kanam tuuti di présenter rapport bi ndax mën nga ñëw ak ñun un ci bilan wu MEDES ci at mi ñu génn diggante daaw ak ren lan nga euh, mën ñu mën a tënkal ci ci ci taxawaayu MEDES. waaw li ñuy def nag moom dafa dafa am solo maa ngi wax toujours ne li ñuy def aussi lañ ci sant yàlla bu baax di puis remercier aussi ki nga xam ne moom moo jiite organisation muy président Mbagnick parce que euh, mbooloo moo gis muy doxit ka ci jiite gis-gisam ak yaatoom ak ak ak tabeem dafay dafay dafay am jeexital ci mbooloo mi loolu daan nañ ci président Mbagnick donc li ñu jot def daaw ba ren bari na wax dëgg yàlla bari na tey jii wax Fatou ne mm. bu ñu xool organisation patronale yi ñun bokk nañ ci bi nga xam ne moo ci ëpp doole mm-hmm. ndax suñu yëngatu boo xoolee ñu ngi wax léegi mercredi menes si nga xam ne entrepreneur dañu dajale di wax luy doxal économie lan mooy problème lu ci nekk problème ak lu koy doxal ñu jox ko gouvernement bi mm-hmm. ñu ngi wax ñi tëggee réew mi lépp lu jëm par exemple ci courant jëm ci pétrole ci gaz jëm ci mbéy mm-hmm. ah jëm ci numérique lu ci nekk rek am nañ ci pàcc boo xam ne suñu ay expert waxtaan nañ ci suñu waxtaan ak gouvernement ba li nga xam ñun li ñu leen di mm. ci bàyyi xel xam loolu am na solo mm-hmm. bon boole ceeg Euh, li ñuy def gis nga ñu ngi def forum de premier emploi loolu tamit activité la. Mhm. ñu def corridor bi nga xam ne moom la ñuy dajale kàngam nga xam ne ñoo doxal réew mi ci wàllu koom-koom ñu ñu wane leen Sénégal ba pare décorer leen ba ñëpp xam ne ñu la loolu activité la te gis nga ñu ngi ñoo xam ne nit ñu am doole gis nga ala bi passe États-Unis Versace ñëpp xam nañ ko. Mhm. jigéen ñi saagu Versace rek la bëgg ñoom mhm. ñëpp dafa seer nag. mais Versace décoré nañ ko barki démb États-Unis mm-hmm. ak yeneen am doole euh, donc am nañu ay manifestation yu bari yu ñuy def yoo xam ne mm-hmm. ci forum du numérique Afritech bi euh, ñu ngi dajaloo di ko liggéey ci wàllu koom-koomu Sénégal mm-hmm. te loolu jàpp naa ne li di bari bari ah man di wax dëgg yàlla yàlla rek moo tax mooy wax gisaguma beneen organisation patronale boo xam ne toll na foofu ci yëngatu kon dañ ciy sant yàlla aussi di féliciter aussi président bi loolu yëpp gis-gisam moo ko doxee noonu ba pare uti ñu ko ci jàppale. Hmm. ba loolu mën a yomb. kon di ko félicité di suñu membre yëpp quoi. Hmm. ngeen bokk si ci kuréel yu raar yi nga xam ne dañuy dañuy respecté euh, seen euh, agenda at mu jot lañ daan def bu jamono booba delsee dañ koy def lan moo may MEDES mu mu mën a doxee noonu. waaw loolu moom Fat moom loolu moom dafa sax nekk loo xam ne mën nga ne euh, xar baax la pour ne pas dire kéemaan parce que xar baax la ndax li ñuy def lépp muy mën a tuddal yëpp. yi ci biir rew mi ci bitim réew mi ak li ñuy bokk ci gwer ci wàllu nguur di waxtaan ak ñoom lu ci nekk rek date bu mu dellu see rek boo ko xoolee ca lay koy defaat wala du ko sori loolu tamit organisation la te loolu yëpp moo man wax naa la léegi ne ki jiite euh, moo bàyyi xel ci lool ba pare mu jaral ko mm. ndax xam nga organisation yi tamit euh, faatu euh, xaalis rek ngay génne mm. dañu waxante dëgg ndax li ngay gis yëpp hôtel yi dañ koy fay mm-hmm. ah nit ñi boo dee indee jëleen biti réew ko forum bi ñu jox forum international des entreprises francophones xam ne ay tubaab ay jógee ci quatre-vingt-dix dëkk yi nga xam ne dañu làkk tubaab ñëw dajeeg ñun ñaari fan ñu waxtaan yooyu yëpp ay frais yu dul jeex la mm-hmm. mission yi jëm bitim réew ay frais yu dul jeex la loolu yëpp organisation bi moo koy jël en charge te loolu tamit euh, yombul moo tax boo gisee yeneen organisation yi du ñu yëngatu lu bari mm-hmm. euh, frais yooyu la ñuy moytu ñun nag yàlla def na am nañ ci ay pexe président am na ci ay pexe ñun ñëpp ku ne jàpp ci ba nga xam ne organisation yëpp de lu diis la nag ci wàllu alal. Mm-hmm. mais tax hôtel yi dafa cher tey boo déggoon benn hôtel rek ne benn salle soxla pour benn matinée ay millions lañ lay laaj. Mm-hmm. waaw li ngay damay tooñ toujours naan butéelu ndox bi ñuy jaay ci buntu bopp koñ bi fii fanweeri dërëm ci hôtel bi <laughs> ñetti téeméer lañ koy mm-hmm. jaayee kon hôtel yi ay frais yi dul jeex la mais yàlla defal ñu sutura bon ci pexe président bi ak nit ñi jàpp yëpp. yooyu yëpp ñu ngi koy def ñu ci am ndam di ci am sutura puis eh, bëgg rek mu jëm kanam mm. parce que luy lu ñuy jëriñ la dëgg la mais luy jëriñ Sénégal ak luy jëriñ nit ñi la surtout ci wàllu liggéey mm-hmm. pour xale yi ak ci wàllu liggéey entrepreneur yi ñëw bokk ci ñun. Mhm. alors MEDES boo xoolee ak yeneen euh, organisation patronale yi da ngay gis effectivement différence bu bëri ci seen ay démarche ci seen ay concept ak euh, yeneen ak yeneen euh, ci yan ponk le mouvement des entreprises sukkandiku ba mun a am nu muy doxalee muy am aussi njeextal boo xam ni vraiment làmb daj la. waaw ci laabirante rek xam nga lépp mi ngi ci biir laabirante ci biir liggéey par exemple damay wax toujours président euh, moom tam nit ku laabir la nit ku généreux la ku bëgg solidarité la aussi ku bëgg nekk ak nit ñi la te mën na jëli ay nit yu ànd ak moom ci liggéey toujours mi ngi jëli ay nit yoo xam ñu ngi ànd ak moom ci liggéey xam nga loolu tamit njiit tamit loolu dafay am day am njeexital ci li mu jiite bu melee noonu tey dafa mel ni boo yore sa kër rek boo xatee doo bari gan wala déet. Mm-hmm. waaw boo siisee xam nga doo bari gan. waaw waaw <laughs> loo gën a yaatu rek. <laughs> <laughs> loo gën a yaatu rek eh, li nga yore gën a dox. Mm-hmm. loolu feeñ na suñu mouvement suñu mouvement eh, ki ko jiite yaatu na. am na générosité ñun ñi ci toppit ku ci nekk yaa ngi seet looy jëriñ ku nekk la doo seet lan la ma mbir mi di jëriñ mais da ngay seet looy jëriñ mbir mi. Mm-hmm. te mbir mi wax naa ne ne eh, bénévolat la da ngay jël sa temps di ko ci teg. Hmm. pour Sénégal di ko ci teg pour économie réew mi. Hmm. loolu nit ñu yaatu rek ñoo ko mën a def boo gisee yeneen ñu ci bari eh, yàlla na ma baal gis ñu jëf yooyu parce que eh, loolu tamit dafa xaw a diis. Hmm. ndax dangay ngay bàyyi lu am solo loo jàppoon ngir ñëw def loo xam ne da ngay jàpp njëriñu réew mi nga ci jublu ak njëriñu ñi nga àndal. loolu daal mooy suñu secret moo tax ñu mën a def li ñuy def nii yëpp. et puis nit tamit gis ko ndax gis nga bu ñu ootee premier premier ay ay ay ndaje gars yi dañuy ñëw ba bare bare bare bare mm-hmm. premier emploi bi ay junni junni xale ñooy ñëw te ñoo ñëpp buñ ci génnee dañuy am liggéey te loolu mënoon na ci bañ a fekk MEDES mm. ndax ki yore société di liggéey kay uti liggéey mun yoonam mën na cee bañ a nekk mm-hmm. mais ñu toppatoo lool ba loolu yëpp vraiment ñu ngi ciy am ndam yu yaatu bëgg nag mu ye mu continuer mm-hmm. alors lan la des MEDES mal tey ci kanamam euh, seen ay projet perspective à court euh, et long terme ci lan ngeen di dox jamono yi waaw li ñu li ñu gën a gis daal mooy li ñu xam ne jot nañ ko liggéey ñaar fukki at ñett yi nga xam ne ñi ko doon liggéey ca tàmbali ba la ba ñu yëgsi ci ñun ñii mm-hmm. euh, ci njiitu président Mbagnick loolu gën a dëgër parce que tamit ay aki la mooy ay ay ay ndono la yoo xam ne ñun ñaan nañ suñu borom mu gën a dëgër ndax it ñun yàgg nañu liggéey ndax boo déggee ñu naan vingt trois ans yaa ngi jar di ko loolu yàgg na. Mhm. kon dootuñu ay ay xale yu tàmbalee liggéey am nañ benn expérience bu ñu am bëggoon nañu nag li nga xam ne sonn nañ ko pour mbir mi toll fii ay ñeneen ndaw ñëw jël ko yeggali ko ci suñu jàppale tamit ba tey ndax duñ leen bàyyi rek noonu. Mhm. loolu bokk na ci perspective yi bokk na ci perspective yi tamit ñu ñu nga xam ne dé jotoon nañ ko liggéey mu dëgër mu gën a dëgër suñu diggante ak nguur gi fi nekk ak nguur gi fi mënti nekk ndax économie du affaire du affaire du régime mm. affaire du affaire du régime affaire du pouvoir la mm. c'est-à-dire euh, nguur gi fi mënti nekk it euh, économie day Sénégal day continuer dox mm-hmm. te bu continuer dox entreprise day continuer am mhm. kon diggante ñun ak pouvoir bu fi mënti nekk la nga xam ne ñu ngi koy liggéey di ko liggéeyal ci économie maa ngi lay wax ne li fiy dox ci pàcc nguur gi yëpp jëm ci courant jëm ci ndox jëm ci mbéy yëpp MEDES da ci am xalaatam mhm. di ko séq gouvernement bi da ci wax loo xam ne gouvernement bi da ci bàyyi xel mhm. ba maa ngi lay fàttali ne li nga xam ne moom mooy tënk développement Sénégal fi ak ñaar fukki at ñoo ko daal stratégie développement secteur privé eh, MEDES la yàlla def mu waxtaan ak entreprise patronale ak ak syndicat yi ñu am yëpp muy yeneen soci yeneen organisation patronale ñu jiital MEDES mu yore liggéey boobu kon bëggoon nañ nag loolu continuer ba ëllëg xale yi nga xam ne ñoom ñoo ne ci suñu biir mën a dëgëral liggéey boobu continuer ko ba xam ñun ci suñuy suñuy jàppale bien sûr ba xam ñun dinañ mën a toog santal yàlla xam ne li ñu li sonnoon mm-hmm. ngir Sénégal sonnoon ko ngir économie Sénégal am nañu ko yore yore bu rafet mm-hmm. économie Sénégal jamono ji mu nekk ci euh, jafe-jafe euh, donte euh, yenn crise yi nga xam ne ñu ngi ko doon jànkonteel ñu ngi koy ñu ngi koy tàmbalee romb mais jafe-jafe politique tey taxaw ci réew mi mën a gàllankoor lool koom-koom bi MEDES ban taxawaay la am ci loola waaw loolu tamit dafay nekk suñu yitte ndaxte damay wax saa su ne eh, maanaam économie muy koom-koom mi ngi tegu rek ci jàmm am mm-hmm. ndax lañ olof naan balaa nga koy balaa balaa nga koy tal fekke ko mm-hmm. loo talul loo talul doo ko mën a lijjante tey li bi bale taluñu wax économie ndax dëkk ba dëkk ba tàkk na ci acteur politique yi rek ni ñu doxalee dañu def ay erreur ba yàq réew ma tey mm-hmm. li tey metti na tey donc ñun yooyu yëpp dañ ci am ay jàngat xam def benn appel à l'apaisement wax ñi nga xam ne ñooy ut nguur gi ak ñi ko yore ñun économie la ñu bëgg mu taxaw fexe leen ba jàmm am ci réew mi te it nañ ci dox ay tànk. Mm. loolu syndicat yi nga xam ne ñoo yore patron yëpp muy MEDES muy CNES muy CNP ñoom ñëpp taxaw nañu ak CIS ñu leen ah attention coow li bari dëgg la mënul ñàkk ndax xëcc nguur bëgg ko téye ak. Ah, ki ko bëgg jël faw mu am yëngatu mm-hmm. waaye nag bàyyi leen xel ne bu économie amul liggéey du am maanaam jàmm bu amul économie du am économie bu amul liggéey du am liggéey bu amul alal bi ngay yore sa bopp ak sa njaboot du am kon na ngeen bàyyi xel loolu ba nga xam ne daal nañu def lépp ba jàmm sax ci réew mi ki war a toogaat ci réew mi toogaat fii ñu war a opposé wu opposé wu ñun daal loolu wax nañ ko ba ñëpp dégg ko Euh, alors entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo euh, yenu économie réew mi euh, di entreprise yi nekk ci Sénégal secteur privé bi ñuy dégg toujours ñuy ñuy ñaxtu ak di jàmbat yenn jafe-jafe peut-être ngir ñàkk jot bi ci liñ war a jot taxawaay bi ñu war a am itam xëy na amuñu ko tey secteur privé bi wala entreprise sénégalaise yi naka la ñu def bu doon nit ñu ne naka sa yaram waaw loolu nag man mën nga wax ne am na ay am ay problème peut-être problème yi matewul fépp mais am na ay problème euh, li ngay dégg tamit ñu koy wax am na ñu ko yàgg wax te mu am na ci nekk dëgg mooy liggéey yu mag yi nga xam ne moom la réew mi di liggéey mm-hmm. joxuñu ko nitu Sénégal yi loolu am na loolu nag am na ay pexe pour lijjanti loolu te gouvernement bàyyi nañ ci xel ndaxte maa ngi lay wax ne am na benn benn liggéey bu mag boo xam ne ñun ñoo ko jiiti woon MEDES depuis at liggéey ko gouvernement moo naan stratégie nationale développement secteur privé mooy daan tënk la ñuy tënk pour secteur privé Sénégal beeg bi bitim réew am seen cër ci économie Sénégal ndax économie Sénégal mi ngi dox mm. am nañu croissance am nañu PIB bu dëgër waxtaan woowu waxtaan nañ ko at ba tënk ba tënk benn kayit boo xam ne suñu diggante ak gouvernement bi la suñu diggante ak bailleur de fonds yi suñu diggante ak société civile bi la kayit googu euh, mi ngi ci président de la République euh, ma Sall ba jaar na conseil des ministres lañ ca wax nag war nañ def benn daje benn conseil présidentiel bu mag boo xam ne président moo koy jiite ñu toog waxtaane dañ fa définir nan lañ koy mën a def ba nga xam ne eh, lii nga doon wax nii muy jàmbat bi nit Sénégal di jàmbat ak yenn tubaab yi tamit dañuy jàmbat ak yenn nit ñu weex économie Sénégal nu muy doxee ñu mën a saafara loolu te loolu nag mooy tënk ji eh, économie Sénégal ak wàllu woowu nu muy doxee fii ak ñaar fukki at encore xam naa yàggatul tuuti président dina oote pour ñu def conseil présidentiel boobu waxtaane loolu mm-hmm. am naa yaakaar bu ñu ko waxtaanee mm-hmm. lañ ci jot a tënk dina saafara jàmbat bi nga xam ne ni ñaa ngi koy jàmbat ci économie boobu ba tey mm-hmm. ñu jeexal ak MEDES xëy na mouvement bi naka la def moom itam euh, wax nañu ne mi ngi màgg nit ñaa ngi wéy di ko di ko wutal si di adhéré euh, naka la MEDES euh, def tey ah, macha allah MEDES moom yàlla def na mi ngi dund bu baax mu sant yàlla bu baax a baax ci loolu parce que yombul na ñaar fukki rek ñett rek la dund am na ñoo xam ne def nañu juróom-benn fukeet am na sax ñu def lépp loolu kon bu ko defee eh, mi ngi dund bu baax ni muy dundee nag mooy ñi ko jiite rek ñoom ñoo am xalaat boobu xam nga eh, mbir mu ne mi ngi nuru ak ko jiite damay wax toujours ne président bi ko jiite eh, yàlla def na yaatu na nit ku yaatu la nit lu xam tamit nangu na sonn ci luy jëriñ nit xam nga loolu dafa am solo loolu générosité bi gën a mag sax mooy loolu. ñi dañ jàpp ne générosité mooy génn alal di ko jox nit waaye déedéet mooy nga mën a sonn ci soxla nit loolu lislaam daf ko santaane euh, donc ñi ñi ko wër tamit nga xam moo leen jëli ñu ànd ak moom ci liggéey bi ñoom ñëppit jikko yooyu mi ngi si ñoom mooy tax nag entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo ne Sénégal di gis loolu dañuy daw di ñëw mm. si nga gis nga suñu mercredi météo day fees dell dañuy am lu mat téeméer entreprise yoo xam ne juróom fukki yu bees sañuy ñëw mm. ñoom ñëpp dañu bëgg ñëw bokk donc day tax dañu gis seen bopp ci réew mi ni muy doxee gis seen bopp aussi ci économie Sénégal ni muy doxee ak ci mouvement bi ni muy doxee mm-hmm. loolu nag euh, stratégie la bu ñu am ñun yàlla baaxee ñu ko dañuy ñaan yàlla mu continuer rek mais mouvement moom mi ngi màgg gis nga suñu activité yokku na mm-hmm. membre yi ñu am macha allah yokku na lépp loo xam ne ñu ngi koy def ci réew mi lu gouvernement bi di def bailleurs de fonds di ko def service am nañ ci wàll dañu o oo laaj ñu suñu xalaat te xalaat dañ koy déglu ci biir lool mm-hmm. jërëjëf euh, monsieur Modibo Diop ñu ngi lay gërëm amoon mbégte lool dalal la ci matinalu Rewmi FM tey fàttali ne vice président nga ci mouvement des entreprises du Sénégal MEDES ngeen di amal euh, tey ji ci suba gi seen ñaar fukk ak ñetteelu session assemblée générale ñu leen di ñaanal succès ci seen liggéey nga xam ne euh, di ngeen ko amal tey renouveler seen ay instance mais aussi waxtaane seen activités yi ngeen jot a def présenter un rapport xëy na itam wax ci li ngeen dëgmal ñu ngi lay gërëm bu baax a baax jërëjëf Fatou